asalaamaaleykum waa bitim réew asalaamaaleykum waa Médina tey liñ fi dajale tey mooy rendre hommage à notre président de la République au nom de notre DG Cheikh Ahmed Tidiane Ba tey liñ fi dajale mooy sant ak gërëm liñ fi dajale tey tey mooy DG. day delloo njukkal ki nga xam ne mooy kilifaam mooy léppam tey jii Cheikh Ahmed Tidiane Ba dafay feddali kóllëreem ak président Macky tey jii Cheikh Ahmed Tidiane Ba dafay rendre hommage tey jii ak euh, président Macky dafa am lu bari lu xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba ci nguur gi nga xam ne moom la président Macky Sall yore réew mi mu jox ko ci ay poste yu xam ne poste de responsabilité la jox ko ci ci poste yooyu daf ko njëkk a def diggante 2014 ak 2019 mu nekk directeur des impôts et domaines diggante 2019 ak 2023 mu nekk directeur de des caisse de et consi des dépôts et consignation 2023 mu def ko directeur général banque agricole tey jii nag liñ fi dajale mooy décision courageuse bi nga xam ne président Macky Sall jël na ko pour la première fois ci histoire Sénégal wala histoire Afrique un président de la République jël décision ne dootuma def du ma def trois mandats ci Macky Sall la xewee ci Macky sàll lay continuer ci Macky Sall la ko defee tey jii nag li ñu war mooy lépp lu xam ne président def na ko fi démocratie yegg tey ñun yegg nañ fa ku nawul woon Sénégal naw nga ko ngir président Macky Sall ku xeeboon Sénégal bëgg nga Sénégal ngir président Macky Sall weddi gis bokk ci ni kàdd gi taaroo noonu la liggéey bi taaroo ku xool ci affaire sociale li mu dugal ci réew mi musuñu ko dund ku xool li mu def ci infrastructure mësuñu ko am ku xool fi mu yóbbu Sénégal tey muy président bu xam ne benn la ci Afrique kenn musu ko faa yóbbu kon kooku tey mérité na njukkal tey jii nag ki ñu yebal pour ñu wax loolu dafa am solo ci gox bii ñu nekk ci departement de Dakar même au niveau national et au niveau international muy la DG Cheikh Ahmed Tidiane Ba tey jii kooku bu la teralee ci nguur teral bi mooy daf du daf lay jox nga dugal ci sa poos mais daf lay jox nga dem ci askan wi defe naa ne ku ñëw fii tey da nga xam ne conférence de presse euh, point de presse bii ñuy def lu ñu amal solo la xam ne Médina bëgg nañ euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba bëgg nañu la président Macky Sall tey jii reconnaissance boobu nga xam ne depuis deux mille euh, non depuis deux mille quatorze président di gën a digganteem ak kóoliteem ci digganteem ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba tey jii. kooku nga xam ne moom la wóolu woon poste yi ñu leen fi limal yëpp dénk ko ko kooku mooy rendre hommage tey notre président Macky Sall ki abal bët nag tawar la yoon bi fu mu ne xoolal fa xool tey la Cheikh Ahmed Tidiane ba gën a dëggu tey la Cheikh Ahmed Tidiane ba gën a taxaw at mbooleem ku xam ne mi ngi bennoo bokk yaakaar at mbooleem ku xam ne mi ngi ci partem y compris ñun ñi nga xam ne APR la nu bokk pour fas yéene renouveler waat suñu confiance ak président Macky Sall bu nee ñuul na ñu ne kuk bu nee weex na ñu nu tàll ku mu tànn rek fekk nañu ngeen bu pare di ko xaar te day ñaan yàlla lii nga xam ne mooy point de presse bii ñu fi indi tey di wax ci turu Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu wan leen ne ñun pare nañu amuñu beneen candidat soxlawuñu benn kan beneen candidat ndax nag ku dugg weddi gis bokku ci ku dugg biir Sénégal gis li nekk Sénégal gis avancement bi Sénégal am par rapport ak yeneen pays d'Afrique yi xam nga ne ñun dañ koy xaar fu mu nu joxoñ loo danañ fa joxoñ loo danañ ko xool kum ñu jàppale loo danañ ko danañ ko jàppale te it pare nañu tout nag pour jël suñu doole suñu liggéey suñu lépp def ko ngir gunge suñu futur euh, président de la république ñun amuñu dara luñ ciy wax lu dul rek choix président mooy sunu candidat choix président mooy sunu candidat choix président mooy sunu candidat ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp tey ñaan nag fii nga xam ne fa la jëm képp ko xam ne da nga takk woon en 2012 takk ko en 2000 bi ñu mujj élection yu mujj euh, yi présidentielles yi 2019 na nga ko takkuwaat 2024 ñu jël candidat Benno Bokk Yaakaar yóbbu ko ci palais bi jërë jëf maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp.